Mhm. ñu ngi lay dégg ngay wax affaire wax yi sàngara mhm. ak kuy tox yàmba kuy tox cigarette loolu tamit sa xam-xamu alxuraan mhm. may na la ko ci wala may na ma ko ci ndax euh, lépp dafa bokk ci loo xam ne mën na la jàpp ba nga dugg ci loo xam ne pour nga génn ci sax problème moo dal ñu bëri da koy jëkke ci po mbaa ci leneen bu boo doon ci loo xam ne mënatoo ci génn mu mel ni euh, euh, maanaam naan sàngara jëm ci ay tux yu bon yooyu ci xeet bu nekk loolu itam yàlla may na ma ci dama ciy jëmle yu bëri. léegi mhm. ak tux cigarette daal daal daal may na ma ci. ba ku ku ci taxaw ak yow daal. ku ci taxaw ak man daal dinaa ci def sama kéem kattan ci kattanu yàlla. asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi leen di ziar bu baax ça noo def nag. ah am de moom damaa bëgg a joxe sama avis rek ci maîtresse d'un homme marié à propos de la diggante boobu ak Cheikh Ndiaye ak euh, Marème mais certes dinañ naan Cheikh Ndiaye la mais benn côté tamit laala la parce que jëkkër ji da daan nëbb ko. dem ba découvrir ni jëkkër ji day doxaan te moom xam na ne Cheikh Ndiaye bëgg na caga boobu ngeen baal ma ci kàddu bi mënoon naa mënoon na kaa proposé rek ne ko est ce doo ko takk di ko ci kër gi mais defu ko te ñaari miinante te bëggante moom lu leen di tàkkale ko moom du doon du yombee noonu daal te fii daa amoon si ñoom ñaar ñuy continuer di génn ah Cheikh Ndiaye mu xam ne moom ko tamit ak. d'après lu ñu dund yëpp mu ko bàyyee noonu il fallait mu takk ko xam nga mais ci bi takk boo tam benn côté mere naa ko mënoon na cee waxtaan ak Lalla mais lépp ci ragal Lalla la xam nga capricium affaire yooyu nu fa demee ba tax na ba mu koy takk sax yëgalu ko mais yaay ji yëgoon na ak euh, biiram ak euh, frère biiram bi ñoom yëgoon dañ ko dem takk sëy bi mais benn côté Lalla ci man deful elle fait la malin seulement mais dara jotu ko ah, peut-être liggéey bi tamit est-ce que moom tamit liggéey parce que mi ngi daan ñu Cheikh takk beneen jabar te moom nekk fii ah bëgg naa daal xam lépp moo tax ma dugg. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu um, waaw dama bëgg a def juste sama commentaire ci par rapport à la euh, je pense que ni Cheikh. même réagiré d'une part normal na mais d'une paax tamit normal na parce que gis nga jigéen ñi léegi nanguwuñu wujjee te gis nga moom dafa waxoon ni seex du takk euh, ci xale bi non seulement pourquoi mu traité gel bi de tous les noms des oiseaux wax bu bon bu nekk mu wax ko gel bi ne ko du ko takk te dañu war a comprendre benn affaire gis nga jigéen ñi léegi dañu bañ wujjee ku ci tuddal wujju nag moom da koy jaral sax mu dem si sëriñ pour takk jëkkëram bañ a takk te ñun dañuy judd fekk suñu yaay di wujjee ci anam bu rafet ñun ñu bëgg ko fi dindi d'accord ma ci côté boobu côté laal la je ne pense pas que kenn liggéeyu ko te doful man ci li ma jàpp dafay dof doflu parce que xam na ni su dof dofloo man ci ni sama xalaat lay wax nag euh, seex du am temps wu sax nekk kële wala mu am temps wu Euh, seen lim de miel bi ñu waroon def ñu dem ca man je pense que ne laal na dafay dof doflu parce que mën nga am pression bu nekk mais dof ci saa si ndax sa jëkkër def la taxawul non boobu moom d'accord wàcc beneen bi ci des mooy euh, pour man gis na ci sama man sama bët. góor mu wax ak jabaram mu ne ko dafay takk ñaareel jour bi mu waree takk ñaareel ci fajar ki jabar ji laaj ko dépense am mu jox ko bu mu ko joxee daf fajar gi dafa dem wuti sëriñ takk gi ci jour boobu la waroon am amul gis nga bi mu koy defa daf ko ko nëbb ba takk ba pare wax ko ko am na yenn jigéen yoo xamante ne bis booy jaay euh, sama jabar dama ko war a wax ba wax ko ni ko dangay takk yow jeex na. doo takk jabar ci kaw mu koy yëg moom kañ danga takk takk gis nga man bañuma wujj kamay wujjeel naa fekk mu yoo jikko bu ma mën a defanteel bu ma jaay benn affaire nañu ànd jiboo bokk lu ñu bëgg mais ba xam nga ban wujje laa bañ wujje bi nga xamante ni si yow ñëwoo sëy si dangaa ñëw pour tas si kër gi te par rapport ak Marème Marème dafa bëgg Cheikh war na mën a sey ak moom pour côté laal la nag moom exemple bu mu joxe pour sa jëkkër takk jabar nga dof man d'accord ma ci parce que gis nga bu doon jigéen bu baax su la sa jëkkër takkalee wu ci amul problème dang koy gérer ci kaw ci kaw nga xam ne nga mënoon gérer sa jëkkër ma mais góor yi nii gis nga li ma waxoon sama benn copine ma ne ko ku ciy sëy instant bi. si yaboo ngay sóoraale wujj ñaara am nga sóoraale ko am ko nga sóoraale ko te doo ko am mais góor yi ma gis yamatuñ ci benn jabar gis nga daf lay jigéen ñi léegi waxuma ne ñu xam ne sax sa seen jëkkër day doxaan bu ñu xamee ne sa jëkkër doxaan sax mu xam turu gel ba sax ma nga ca sëriñ waxuma nag ma mu ne daf lay takk man nag laal doon ni mu doxalee daa ko am ci parce que man jàpp naa man sama xalaatu bopp ne laal la doful day dof doflu te ba ko nag muy leer ah su dofee na ma jaaxal trop mais man d'après li ma analysé man. yaakaar naa ne laala day dof dof la parce que laala xel mi moo ñor loo xalaat ne xam xalaatu ko rek xalaat na ko toog di la xaar safu ko sax mu dof dof la. maaleykum man a soxna Loute Diam maa ngi si lu Sénégal laa dëkk na si Touba Soura waaye man maa ngi si Mauritanie di liggéey naa la moom dama dama ko soppee trop sama xol laa ko def dama ko bëgg te yàlla tax rek dama ko sama kii sama wakaal bu nga joxal ma ko naan la sama neex li muy conseil firmam bi li muy conseil moroom yu jigéen yi wax dëgg neex na ma trop wax dëgg waaye man ne jànqam bi jànqalaan nag waaye li muy doxalee xale bi mais parce que yeesaay bu li muy def xale bi di ko dóor yeesaay sama xol bi day <laughs> day métti ndax man ay xale laa yor ci Mauritanie moom lay liggéey waaye wax dëgg man ba dundal noonu xale yi xale yi wax dëgg bu leen def yëpp xam affaire yi soxor yooyu xam nga du ma leen ko def wax dëgg xam nga xale yi comme samay doom laa leen def xale yi du ma bëgg dara mettale wax dëgg du ma bëgg ñu jooy sax waaw moo tax jànqar bi ni muy def xale bi doom bi si firma bi daf may métti mujj gi laa sama da ciy daw firma wax dëgg dama neex trop bu ma loon def lu ma a jàpp te bi jot rek damay fas yéene jàkkaarloog télé bi seetaan ko ba mu jeex waaye man nag yenn saa bu gaawee jeex sama yaram <laughs> bëgg bu gaawee jeex ndax firma bi neex na ma trop macha allah ni koy doxalee wax dëgg dama neex trop. Mara Diagne si moom macha allah <laughs> ni muy def nag waaye nag parce que day yàq si mu jigéen yi daal <laughs> ndax jaalo bi muy def ak comme ça nangu jëkkëri jaa wax dëgg xaw na ma métti trop bu wax dëgg jëmmam na ma trop waaye comme ça ni yooyu daal mais parce damay xaw a métti trop <laughs> waaye loo gis rek firime la rek firime la rek dañuy yeete rek dañuy waaye wax dëgg neex na ma trop firime bi moom neex na ma trop macha allah ndax yàlla jëmale kanam li bëgg rek. yal na leen ko yàlla defal ci jàmm rek ci barke Seydina Muhammad neex na ma trop wax dëgg yàlla chaque jour tey dama doon seetaan ci affaire yi débat yi rek ma ne xaar tey ba jël seen numéro rek jël seen numéro wax dëgg neex ma trop waaw waaw maa ngi jégalu nag <laughs> pardon maa ngi jégalu bu baax a baax nag ci kàddu xam ne maanaam maa koy jégalu bu baax neex ngeen ma trop chaque jour daal ma leen di bëgg a woor waaye xam ngeen nag film bi daal ni muy neex na trop waaw. waa salaamaaleykum salaamaaleykum waa maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa jëri bi def théâtre yu lalla bi waa man maa ngi tudd damay leb tur bi sax damay leb tur man ni ma gisee lalla daal dil la parce que ñu takkal la wuj rek ñoo wax la ko nga jaare si tiit ba dof loolu dil la lala day def dil boo xam ne day tax cheikh bay bay maxeem loolu lay préparé pour sëy boobu du dox parce que mu ngi naa dama am rendez-vous Marème Faye Sall moo may woo ah cheikh danga ko takk danga ko takk kii moo moo nee def kaa liggéey nee na def koo liggéey xam nga yëpp affaire dil la aawo yi moom mooy loolu awir ah rek li ñu mën nañu dugg ci barigob diwtiir léegi génn weex taal asalaamaaleykum salaamaaleykum na ngeen def yéen a ngi jàmm ba maa ngi rafetlu seen thème bi nga dëgg de seex de bi muy takk jabar dafa waroon naa woo jabaram waxtaan ak moom ba pare da ci mën di am ma doog di takk waaye waru xaar ba problème bi am muy dem di takk di profito di takk ndax loolu tey jabaram ji mën na cee dof mën na cee def lu nekk mën na cee rey ëllëg bu ko ci reyee da koy rey ba pare ëllëg di ko ci ndax bari na fi bari na fi trop loolu daa jaatut góor ñi nañ rafetaatal seen diggante rafetal seen jabar yi seen diggante jabar xam ne jigéen moom boo ko yoree danga kaa war a muñal ndax benn jigéen matut waa ndax yàlla dafa bind ñeent lislaam bind na ñeent soxna waaye nga jaarale ko ci yoon man de ab ah, mareem de jarulu ma ko man ndax a ah, loolu daal du yoon maa ngi jéggalu nag bu dee dafa am leneen lu ma ci wax lu juum rek maa ngi lu baax moom la aada maa ngi dëkk Touba la aadam ba maa ngi dëkk Touba maa ngi jéggalu baax baax a baax bu dee juum naa ci asalaamaaleykum waa Ladoum TV maa ngi di ziar baax a baax di leen màggal di leen gis seen yéeguwaay bu baax a baax waa di di tontu si seen question bi ngeen joxe rek man moom dama foog ne jigéen moom ak lu mën a am rek war nga bàyyi sa xel ni sa jëkkër war na mën a am beneen soxna loolu moom ak nu mu mën a demee rek war nga ci mën a bàyyi xel kon boo demee ba loolu dina def doon lu doy waar.